na bikum faatatina na ñaari doomu aadama niki démb moom korona bi allah ba tax sursu aayina kaay na lim bi fi mu toll nii faraglu ma ngay gën a bëri fukki doomu aadama ak juróom seen bakk na nga ca diggante dund ak dee fukk ak ñeent cas communautaire téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñett xam nañ fi jàngoro bi ci démb ak bërki démb docteur Bousso ne lu ngeen ci xamul nag moo yëf yi fa nar a gën a bëri vox populi ne dibéer gaaw bi promotion fa nar a yokk corona bi ndax place yi ñuy sangoo ci pegg géej gi donte nguur gi xaaye na ko terew nit ñaa ngi fa bëri critique yéen a kaay ne ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wér-gi-yaram ñoo xëy tey ci yéen a kaay yi di artu askan wi ne liy raam ci ñag bi la jëm te bu fa xamee pax nag fay dëkk ba tax professeur Seydi ne ah sénégalais yi moytu leen bu nu sàgganee yëf yi dana dem ba jéggi dayoo xëpp loxo kàddoom yaa ngi ci laas yéen a kaay docteur Bousso feelu ko ne fi mu toll xeex corona bi mi ngi ci loxo askan wi dikk bi couvre-feu bi presque dindi nañ ko 23 heures kon nag ñoo war a moytu yéene kaay bi du ñu xamal na Aliou Sall rakk njiit réew Macky Sall mi xamoon corona fi toll ni tane na wér na xam na benn woykat musicien Sénégal baayam fa corona professeur Seydina li garaaw nag ci corona bi jamono ji mooy xam nañu ko am ba nekk ci diggante dund ak dee waaye fa ñoo lànk bañ na dun dem hôpital bokk na sax ñoo xam ne ca kër docteur la ñuy liggéeyee les éco yéene kaay na ñeenti junne doomu aadama lu ko ëpp ñoo xam corona léegi Sénégal téeméer ak fanweer ak juróom kër docteur lanu ba tax ñu seen xam-xam màcc ci wàllu wér-gu-yaram mais dansé guuta lu garaaw mooy yot Sénégal bokk na te docteur Bousso nee na bu nu moytuwut dana mu yegg foo xam ne yëf yi fay wullaa ñaay mbas mi fay wasaaroo tasaaroo masaaroo ci réew mi te su boobaa dana feray ñu bari enquête yéen kaay na ko yéen de waxu leen jàmm professeur Seydi na ko neexute dégg de waaye looloo nar a am Sénégal gii corona dana fi law ba nit ñu jommi mu ray fi nit ba nit ñu jaaxle l'observateur na ko professeur Seydi ñaar fukki dëggam ak ñaar moom la wax rek la mu wax moom Sud Quotidien mooy oto yi tàmbalee daw diiwaan ndeysaan ni bi fa la yëfee nar a gën a wulaa ñaaye de ndax corona bi lañ nar a teg ci oto yi muy daw di farara yi di tasaaroo ci diiwaan yi te su boobaa nag xay xenuñu de source ay yéene kaay na ca dëkk bu sell ba Tuubaa moom lu yéeme fa xam ayaw seet tal benn waaye moo fa faatu kër docteur na korona ko rey ay mbokkam na leen waxu leen dëgg de kër docteur ak sapeur pompier jël ko ngir denc ji ko mbokk ya nangu niiw ba na leen du fi xamee xëccoo jàppante bu métti xamoon fa bañ demee nag bay sang seen niiw ba lu garaaw moo fa am nag demal yëri yéene kaay ba yéene kaay bi di turbine du ñu xamal na Diouf Sarr jëwri ji dénk wàllu wér gi yaram fa doon xamal tukkib nemmeeku ca gox ba wax yoof jege askan benn fukk ya seen corona bi feeñu ci seen yaram wi benn mandarga gisuñu ko ci ñoom te loolu nag mooy kaa bi garaaw ndax mën nga ko wër di ko wàll te yow doo xam ne xam nga ko libération na ko moo taxit corona bi fi mu toll nii bëri nañu mu dal waaye diiwaanu Kaolack ndangaan nag alhamdulilah sant nañu yàlla ndax fi mu toll ni ñaari nit rek ñaari nit képp ñoo am corona nekk hôpital ci diiwaan ba ñi des ñëpp wér nañ ñële xool nañ leen xamuñ corona diiwaanu Tamba it ñaar lañ dese réew mi yéen a kaay ne ni waa kinin bi waa OMS yi waxoon na Sénégal buñ ko fajee tey Sénégal am na dëgg ci ñoom ndax ñu bëri moo leen wérloo de leer laneen lu leer ba yegg ca naan ja mooy ne diiwaan yu bari ñu ngi xaar ndimbalu ceebu gouvernement bi ci corona bi te ba léegi gisuñu dara ba tax diiwaanu Kolda luga mer nañu lool nguur gi l'observateur moo ñu ko xamal ba pare yokk ci ne diiwaanu kafrin ñoom nag ñoo dem xëdd kaaba nga def lu kenn defut ayaw seetal fa faa xam ñoo xam ne fa ñuy liggéey di payeeku weer xam salaire ñooñu nag ñoo dem di xëccoo ceeb ba ak ay néew di doole fuqaraa masaakin ne aju màkka gi ren ba léegi gars yi fañ koo suspendar na du xam direct news na ko hee dafal ndànk de bul gaawtu nit ñi ren Sénégal mën nañoo aji màkk ndax Arabie Saoudite ña ngay waaj ubbi wàllu préparation de màkk gi li nar a xew nag mooy quota yi réew mu nekk lañ lay jox ci ay ujaaj moo nar a wàññeeku trop sax délégué général nag bi yor wàllu aj gi Sénégal fi mu toll ni amul lenn lu leer ci ndax dañuy ajeem déet mi ngi toog di dégloo rek moo jëwriñ ci ñu dékk wàllu bitim réew li ñu seetlu daal mooy hab campagne ci waxal leen loo xam ne du dëgg looloo leen daal maanaam gaañe fañ leen di sosal rek nay leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na doomu Sénégal bi ñu wax Lamine Diack tey la ñu koy àtte ci réewum France l'observateur moo ñu ko xamal enquête yéen a kaay na ko Hissène Habré bi génnoon kaso ndax korona bi wér-gi-yaramam delloowaat nañ ko ma nga ca kaso ga soxnaam nag ma nga yóoxóoti aka ñaawlu li ni mel li ñaaw ci réewum Sénégal te bëri fi lool mooy njaayum dorog yàmbaa foo biyee xaalis bu setut ba tax wal fajër yéen a kaay ne américains yi FBI yi ñu ngi surveiller Sénégal la mu surveiller ba wax ñu ko moom les éco yéen a kaay mooy na Sénélec daal ak kilifa fa koo rayoon ba mu dee wett te ginnaaw seen contrat boobu am na beneen tooxi doona bu am Senelec muy centre solaire ba nekk kawoon Makhtar Cissé tamit def na fa ak tooxi doona presque fa yakkal ki ñuy wax Moustapha Sène njiital énergie ressource Sénégal turbine yéen a kaay di ñu xamal ne xam na ab militaire bu ñu faat ca liberté 6 ndakaaru allah ñu ne déetawaay xam keneen ku dëgg ci ab ndell mu kalaate ca kawam ca Ziguinchor la xamee ni ki démb si wax doo gëm ndax yéeme gu mu yéeme te lu xam la ayaw seetal benn xale bu jigéen daal moo jàpp ndayam yaayam ji ko jur dóor ko bañ koy toggal xewar mbuqi ba mu tëdd ñaret ñu ne deete déetewaay mu ëlbati ko ne ko yow sama baay nag yow laa wax yaa ci des yow moom duma la dóor de faa lay sa bakkan bi laay leb xaw ma kan waaye yéen ñaar yar laa leen di def ay waa ma ne yaa ñàkk jom fayoon naar bi xoromam de dóor sa nday di waaj a rey sa baay leen de danaa la ko xamal waaye jur du morom bala ngaa dee danga torox gotteeku walaakaana musiba naaru lay dal la nga dee xay xenu la li ngay bon